sëriñ leen ñu doon jàngal démb eh, si si darsu bu njëkk bi ñoo si darsu ñaareel mais ak darsu taani lii mooy darsu ñaareel Hisham mooy wax ak Bilal mi ne asalaamu aleykum yàlla jàmm nekk si yéen wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa barakaatu ak barke xam nga Hisham mën noonu naka wax ne ko asalaamu ndax moo Bilal waaye eh, ixtiraam gum ko defal moo tax mu ne ko assalaamu aleykum dégg bilaal ne ko wa aleykum assalaam yàlla jàmm nekk si yéen wa rahmatullahi ak yërmaane yàlla wa barakaatu ak barkeem kayfa xaaluka naka sa xaal bilaal mooy moo ko wax ne ko kayfa xaaluka naka sa xaal yaa axi yow sama mbokk bi mënoon na ko wax ne ko kayfa xaalukum waaye kayfa xaaluka la ko wax mi mu ne ko yaa axi yow sama mbokk bi léegi mu laajte ne ko manil ax kan mooy mbokk bi comme ne ko ne ko yow la kan wala ko koo kan la loolu mooy manil ax kan kan mooy mbokk bi xam nga man la woon ak waaye arab bañ bañ ñaari sukkoon dajee moo tax mu jël benn bi mu jël sukkur bu njëkk bi daal daal di koy damm soppi daal di def manil axu kan kan mooy mbokk bi Hicham ne ko ana man muhandisun ingénieur la jaridun bu bees mu ko man ingénieur la bu bees ismi sama tur la ana man min al wilayatul muttahida maa ngi jóge ko wilayatul ne ko Bilal ne ko ahlan daal ak jàmm wàcc wàcc wàcc ñu ngi lay wàccee sa wàcc waay wa wàcc wàcc bu yomb wa marhaban ñu ngi lay dalal bi ka si yow ya sama mbokk bi dégg nga Bilaal ne ko dalal ak jàmm tan ñu ngi lay wàccee sa wàcc waaye tanga wàcc si lu yomb yow sama mbokk bi ana man ana man masrurun damaa bég bi xaay ki si dajeeg yow Bilaal mooy wax loolu mi ne ko ana man zamilu ko sa àndandoor la ismi sama sama tur Bilaalun Bilaal wala nga ne ko samilu ko sa morom la ismi sama tur Bilaalun Bilaal ibnu Xaamid doomu Xaamid Bilaal lub na Xaamid ko ana man Eh, amin Washington anta mi ne ko ndax yow yaa ngi jóge ko Washington yaa a Hisham yaa yow yow Hisham ko laa déedéet Hisham ne ko déedéet déedéet ana lastu min Washington man jóge ko ma Washington inni naka man min min New York maa ngi jóge ko New York New York mooy capital Amérique dégg nga eh, wax waxoon nañ inna ak ana buñ daj dajee lay wax inni wala inna nii léegi nag euh, mi ne ko inni naka man min New York maa ngi jo jóge ko New York na wax inna nii waaye inni la wax ba tey baax na euh, bi Bilaal ne ko am muslimun abuka yaa Hisham mi ne ko ndax yow sa papa jullit la yow Hisham Hisham ne ko laa déedéet huwa laysa bi muslimin mi ne ko moom nekku jullit euh, Bilaal ne ko wa ummuka ndax sa yaay nag muslimatun hiya ndax moom jullit la mu ko laa déedéet hiya moom laysa bi muslima moom nekku jullit ñu ne ñàkk na san ay ay waajuram yëpp kenn nekku si jullit bilaal ne ko alaka ndax ñeel na la ab naawun ay doom yaa hisham yow hisham bilaal ne ko ndax am nga ay doom hisham ne ko am waaw lii am naa sitatu ab naayin euh, doom yu góor loolu la ko hisham wax na ne ko am naa juróom doom yu góor bilaal ne ko atullaabun ndax ñoom ay taalibe lañ bu nekkoon ne ñaara daa atalibaani hum bu nekk kenn la mi ne ko atalibun hum waaye xam eh, mbokk eh, kii ay mbooloo lañ moo tax mi ne ko atullaabun hum Hicham ne ko laa déedéet hum laysu bi tullaabin ñoom nekkuñ ay taalibe inna baadahum naka ñenn ñi kat tujjaarun ay commerçant lañ wa baaduhum ñenn ñi muhandisuuna ay ingénieur la Bilal ne ko alaka ndax ñeel na la ay doom yu jigéen Hicham ne ko naam waaw lii ñeel na ñeel na ma xamsu banaatin juróomi doom yu jigéen dégg nga lii la mooy dafay moo jël mbir mi moo moomale ko boobu moo tax mi ni lii waxoon naa la ne bu bëggee moomale mbir mi si kum jàngal naa koy lakka bu nekkee kum ku fi nekkul mi ne ko lëfu loolu yëpp jàngale woon nañu Bilaal ne a amutazawijatun hunna ndax ñoom ay boromi jëkkër lañ ñoom jigéen ñooñu Hicham ne ko laa déedéet hunna lasna bi mutazawijat ñoom nekkuñ boromi jabar innahunna sigaarun ñoom ñu ndaw lañ ay xale lañ daal baaduhunna ñenn ñi fil madrasati ibtidaaya ñu ñu ngi si école ibtidaaya bi wa baaduhunna ñenn ñi fil madrasati mutawassita ñu ngi si école digg digg doom bi bilaal ne ko aleka ixwatu ndax am nga ay mbokku yu euh, ki yu góor mi ne ko yu jigéen hisaab ne ko laa déedéet lay sa nekkul li ñeel ma ixwatun benn mbokk mu jigéen inna lii naka ñeel na ma benn mbokk mu góor inna lii naka naka na ma talaat talaata axawaatin ñetti mbokk yu jigéen bilaal ne ko a muslimaatun hunna ndax ñoom ay jullit lañ Hicham ne ko naam waaw mun na ñoom muslimaatun ay jullit lañ walhamdulilahi ñu ngi sant yàlla wala nga ne walhamdulilahi sant ñeel na yàlla tammat tamarin ajib tontu anil asilatil atiya si laaj yii di ñëw min ayna Hicham Hicham fan la jógee wax nañ ko si darsu bi yaa koy tontu min min ay madinatin huwa si si ban dëkk la la jógee dégg nga kam uxtan lahu ñaata mbokk moo ko ñeel daa tagal haadihi l alaamat bi leen màndarga te mooy sax amaama al jumla saxiha si kanamu jumla yu wér yi wa haadihi l alaama ak màndarga bi te mooy xata mooy foo amaama al jumla allati si kanamu jumla yi nga xamante ni laysat saxiha nekkul lu wér yaa jël bere bu nekkee ne jumla bi kat lu wér la nga def si verre bu nekkee lu ah, ah, foo la nga def def si croix bi dégg nga Hisham mi ne Washington Hisham mu ngi jóge ko Washington yaay xool bii verre nga def bu buy footi mi nga def axawaatuhu ay mbokkam jigéen ay jullit lañ banaatuhu lasna bi bi mutazawijaati yaay xool bu si bu nekkee verre nga def bu nekkee footi mi nga def ay doom yu góor ay taalibe la doom yu góor ay taalibe la yaayam laysat bi muslima nekkul jullit abuhu baayam muslimun jullit la yaaqol bi si vera nga def ko te amal si serantalal maa yo yali lii di ñëw dégg nga laysa bi toolibin nekkul toolibe boo am am am na li mubtada xabar la waaye nag boo si dugalee laysa boobaa xabar gi da da nga yokk ba après daa daa di daa di koy kasra comme ñu jox la fii at tullaabu taalibe yi sigaarun ñu ndaw lañ nga ne at tullaabu taalibe yi laysu nekkuñ bi sigaarin di di ñu ndaw xam nga at tullaabu jamoo la te te nekkuñ fi hum Eh, moo tax mu jëm mu des si laysu waaye xaamid eh, moom damir eh, boo koy nattale huwa la moo tax mu daal di mu daal di fay nattale dégg nga mi ne aminatu amina tabibatun doktor la bu jigéen aminatu amina laysat nekkut bi tabibatin di docteur waxal naa la qaayida bi sànq mi ne alfatayaatu jànq yi mutazawijaatun boromi soxna boromi jëkkër lañ mi ne alfatayaatu jànq yi eh, les na nekkul bi mutazawwijaatin di mi jëkkër anta yow kabirun aji mag nga anta yow lasta bi kabirin nekkoo ku mag yaa gis waxoon naa la eh, si darsu bi bay passé ne la laysa bu bu si anta duggee wala ana yooyu yëpp wax wax naa la nu ñu koy waxee bu nekkee ana la lastu la bu nekkee anta lasta ila axiri dégg antum yéen jurudun ñu bees ngeen antum yéen lastum nekku leen bi juru di ñu bees anti yow faqiratun aji ñàkk nga anti yow lasti nekkoo bi faqiratin di ku ñàkk antun na yéen yéen ñu jigéen ñi mujtahidatun way góorgóorlu ngeen antun na yéen lastun na nekku leen bi mujtahidatun di way góorgóorlu mi ne ana man mudarrisun jàngalekat la anaa man lastu nekk ma bi mudarrisin di jàngalekat nahnu ñun tullaabun ay taal taalibe lañ naxnu ñun las naa nekkuñ bi tullaabin di ay taalibe wax naa la bu nekkee mubtara xabar la bu si lay sa daa daa di duggee dañuy xool bu nekkee damir boobu noonu damir kuñ jàk jàkkaarloo la comme antum euh, te ay mbooloo la te comme comme antum da ngay da nga lastum bu nekkee nag ku fi nekkul la comme hu hum waaye ay mboole la ngeen ne laysu bu nekkee nag kenn jàkkaarloo waaye kenn la nga ne ko la lasta bu nekkee góor bu dee jigéen la nga ne ko lasta ila axiri comme ni nga ko gisee si jadwal bi sànq rabia mi ne adxil dugalal laysa laysa ala aljumal al aati si jumla yi di ñëw comme sànq nu mu la ko joxee woon xam nga defal na la ay mubtara xabar daa daa du si dugal euh, laysa pour war la moo tax si commencement bi dana la taamal seetantal waaye mu ne la bàyyil xel maa yéene léegi nag jox na la ko ne la albaabu buntu bi muglaqun luñ tëj tëj la almaawu ndox mi baayidun aj sedd la hisham hisham maridun aj feebar la abi sam papa naimun aj nelaw la ad darsu da darsu bi saabun aji jafe la almasjidu jàkk bi qaribun aji jege la at tiflu xale bi jawaanun aji xiif la léegi nee na la nga dugal si laysa waaye nag jàppal ne ah, am nga wax wax naa la boo si dugalee laysa xabaar bi da da nga si def ba daal di koy kasra mujj waaye nag jawxaan moom boo si dugalee ba doo ko kasra moom euh, nit comme ni mayoo rek nga koy def bi jawxaana ngay def xam am nga yeneen yi comme comme euh, euh, bii ni mudarrisin boo boo si dugalee ba bi mudarrisin waaye jawxaan moom boo si boo si ba bi jawaani la woon moom moo nga ko def waaye doo ko doo ko def bi jawaani naan bi jawaana dégg al mithalayni ñaari mithaal yi summa dëqal topp nga dugal laysa laysa alal jumalil atis ju jumla yi di ñëw huwa moom taajirun commerçant la defal huwa laysa bi taajirin moom nekkul commerçant huwa moom mi yaabaan mu jóge ko yaabaan defal huwa moom laysa nekkul mi yaabaan jóge ko yaabaan comme ni mu defee ñaari nga defee bi assaatu jamilatun defal oto bi nekk rafet <coughs> ana man ganiyun aju koomal laa defal man nekk ma ko koomal anta yow faqiirun ak ñàkk nga dafal yow ne nekk ku ñàkk hiya moom min al iraq mu ngi jóge ko iraq waxal moom jóge ko al iraq ñun azkiyaun way ñaw lañ waxal ñun nekkuñ ñu ñaw hum homum azbun célibataire waxal moom nekku célibataire al mudarrisuuna jàngalekat yi fil fusuli ñu si biir classe bi waxal jàngalekat yi nekku si biir classe bi anti yow zakiyatun aji ñaw la xam nga waa ji maasut anti gi waxut waxul la anti la wala anta waaye ba nga gisee ne ah, xabar ba kat am na ta boobu nag moo jox ne la kon kon lii anti la dégg nga anti yow zakiyatun aji ñëw nga ah, ah, defal yéen nekk ñu ñëw ñaw wax waxal yow nekkoo ku ñëw antum yéen kibaarun way mag ngeen waxal yéen nekkuleen ñu mag ak taalibaatu taalibe yi fil maktabati ñu ngi si bureau bi waxal taalibe yi nekkuñ si bureau bi antunna yéen taalibatun ay taalibe ngeen jur jur bu ñuy bees waxal yéen nekku leen ay taalibe yu bees ajib tontu ali asilatil atiya si laaj yi di ñëw bi nafin si dàq mustaamilan ngay jëfandikoo laysa laysa nee na laaj yi mu la jox da yaa koy tontu waaye nag tontu tontu bi dàq la dàq bi nag mooy laysa da da nga siy dugal laysa na na na nga si jëfandikoo laysa am ah, ah, muhandisun abuka ndax sa baay ingénieur la nga ne sama baay nekkul ingénieur waaye nag laysa ngay jëfandikoo am ah, mudarrisatun ndax jàngalekat la ummuka sa yaay waxal sama yaay nekkul jàng jàngalekat ak tullaabu ixwatuka ndax sa mbokk yi ay taalibe waxal sama mbokk yi nekk nekk ñu ay taalibe am mumarridaatun axawaatuka ndax sa mbokk yi jigéen ñi ay sens femme lañ sage-femme moom mooy ñuy toppatoo malade yi si euh, hôpital ba waxal ñoom nekkuñu ay sage-femme am mudarrisun anta ndax yow jàng jàngalekat la jàngalekat nga waxal man nekkuma jàngalekat ajurudun antum ndax yéen ñu bees ngeen waxal ñu nekkuñ ñu bees a jadidatun sayawtuka ndax sa oto bi dafa bees waxal sama oto bi nekkul lu bees yooyu yëpp nag na na na nga si jëfandikoo lay sa jublu al mudarrisu jàngalekat bi ila kulli jëm si ñëpp mais tullaab si taalibay asilatun ay laaj yakunu boo xamante daa nekk jawaabuha tontom bi nafin si dàq way yar way yaruddu muy tontu aliya si ñoom ak taalib taalibe yi mustaamilan di jëfandikoo lastu lastu nekkuma comme ustaas bi dafa jël jàngalekat bi dafa jël dafa jël taalibe bu nekk laaj laaj ko ab laaj waaye nag ñoom seen tontu dàq la ñoom comme daal li may laaj laaj ñoom nekkuñ ko wala nekkul ñu waaye nag si seen tontu tontu boobu noonu euh, lay lay sa lañ euh, lastu lañ jëfandikoowe comme mu ne ko amin america anta ndax yaa ngi yaa ngi jóge america yaa koy tontu nga ne ko man jóge ko wuma amérique mi ne ko amaridun anta ndax yow da ngaa feebar waxal man feebaruma amuta amuta zawijun anta ndax yow boromi jabar nga euh, waxal man nekkuma boromi jabar amu handisun anta ndax ndax yow ingénieur nga waxal man nekkuma ingénieur iqra jàngal al mithaal mithaal yi suma daqil topp topp nga dugal inna inna ala jumali atiya si jumla yi di ñëw ah, xam nga waxoon nañ la ne la inna ah, yansibul mubtada wa yarfau xabar dafay nasab mubtada rafaa xabar comme inna allaha gafurun dégg nga kaana ak i mbokkam ñoom dañuy rafaa lisim nasab xabar comme kaana allahu gafuran waaye nag jàppale inna bu ñëwee après lii daal di si topp euh, xurufu jar ba mu si toppee isim boobu noonu moom euh, xurufu jar boobu boobu noonu isim ba mu jar boobu mooy nekk mubtada après euh, lii bi beneen lisim bas bas ba si topp daal nekk xabar comme nga ne fil fasli nekk na si classe bi xamsatu tullaabin juróomi taalibe juridin yu yu bees da dang daan inna fil fasli nekk na si biir classe bi mu ni jox jox na la ko ne la lii ñeel na ma talaasu axawaatin ñett ñetti mbokk asluhu mooy talaasu axawaatin loolu la waroon a wax lii talaasu axawaatin lii léegi nag euh, mu ne inna lii naka ñeel na ma talaasa axawaatin ñetti mbokk yaa ngi gis inna lii naka ñeel na ma talaata axawaatin ñetti mbokk léegi fii inna lii naka ñeel na ma talaata axawaatin cosaan ba mooy inna talaata axawaatin lii ñetti mbokk ñeel na ma waaye wax naa la sànq ne la euh, boobu yaay mooy nekk mubtada bi moo tax moo tax mi ne inna li a ñeel na ma talaata axawaatin ñetti mbokk fil fasli nekk na si classe bi xamsatu tullaabin juróomi taalibe jurdin yu bees yaa koy def comme ni mu defee nga ne nekk inna fil fasli ila axirihi nga nga nga nga leeral ko lanaa ñeel nañu mudarisun jàngalekat jaridun bu jayidun bu baax waxal ñun am nañ jàngalekat bu baax fii jay bi nekk na sama poos mi atu riyaalin téeméeri riyaal yaay wax comme nu mu si dug dugalee sànq fil hindi nekk na si hindi anhaarun ay dex kathiratun yu bëri laka ñeel na la barqiyatun leetar fil mak fi maktabil baridi si bureau bi mi ne lii ñeel na ma alfu dollarin junne dollar fi masraf fi si banque ba dégg nga alkalimaatu jarida ba ba baat yu liqaa'un mooy daj daje jayidun mooy lu baax jaybun mooy poos jamono bi juyubun ay poos naharun mooy firi dex anhaarun mooy jamono bi barqiyatun mooy firi lettre jamono bi barqiyatun ay lettre masraf masrif mooy firi banque mooy firi ay banque mooy jamono bi maktabul baridi mooy bureau lettre bi dégg kon mu ngi mooy baat yu kon lii mooy darsu ñaar ñaareel bi lu si jub si yàlla la lu si dëng suñu ñëw xam-xam la ak suñu ñëw gëstu in uridu li islaaha mastataat wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu